salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokk diaspora bi nee leen nuyu naa leen bu baax kenn ko turam santam man rek la Dj xale bu raakaju la fas yéexi di Saloum yegg si lu bees tàq laa leen andil li nga xamante ni moo nekk seen leader la télévision suñu TV yegg si na ak yeneen ni anam ak kanam gu leex nañ nee leen nag ay programme yoo xamante ni programme yu mucc ayu ñen laa ci àndat nee leen dinaa ci àndat tamit samay xarit samay animatrice yi jong ma macha allah tarkal la ak programme yu wee neex a neex a neex lu ma si mos a wén nag ñen laa ci àndal ma koy commencé rek sama jigéen jigéen ji jongoma ji di Sofiatou moom daal classe yi ànd ak di ko wax salaamaaleykum Sofia DJ Ama nuyu naa la di la ziar euh, di la jox sa wàccuwaay DJ Ama maa ngi nuyu Sénégal di nuyu jaspora ñëwoon tey fii andil leen sunu TV sunu TV nag euh, bu ngeen ko déggee télé bu bees da bu bees tàkk waaw nga mën ko seetaan ci YouTube voilà dama leen andil tamit benn émission bu tudd sama jaar jaar voilà animateurs yi xaar leen ma maa ngi ñëw stars yi xaar leen ma maa ngi ñëw les chanteurs et yi xaar leen ma maa ngi ñëw voilà euh, sama jaar jaar boo ko déggee dañ la bëgg a laaj sa jaar jaar fa jaar ba yegg fii nga yegg si tey lii laa leen indiloon tey Sénégal xaar leen ma maa ngi ñëw. merci Sofia soo yegsee mu neex suñu TV rek nee la mu ngi noonu rek du ma si yem rek moom damay continuer rek jëmale ko jox sama micro ki nga xamante ni moo nekk Fatima Fatima nag am na lu bees sax lu mu la andi ani Fatima maa ngi koy ziar baax aca Fatima nuyu naa la. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum suñu TV salaamaaleykum àdduna man la Fatima maa leen indil émission li nëbbu ci réew mi li nëbbu ci réew mi ak Fatima du yomb lépp lu waaye dul gis ñi nga xam ne dañuy tëdd di nelaw sax bi ñu yeewoo man maay feeñal li nga xam ne gisuñu ko woon démb ci guddi kon ama ci kanam. aja kooku mooy Fatima la suñu euh, euh, na dama si wét encore une fois andi ceeg euh, sama nga ni macha allah thème bi dafay la si sa soxna si sa soxna si yegg see wax leen programme boo xam ne moo leen andi kii kan maa ngi lay nuyu. maa ngi comme ni nga ko waxee rek suñu TV yegg na tey mu metti liñ ñu ngi leen indil émission bi nga xamante moo di sama star yow mi nga xamante sa star de la nga bëgg a xam dara ci moom topp ñu ci suñu TV ñu wan la ci lu mu ne muy dëgg naa leen lii moo nekk li nga xamante ni mooy kër gi la maison de suñu TV nag am na lu nga xamante ni mu ngi ci gannaaw c'est c'est gën a fës gën a neex groupe bi rek moo présenté waaye nee leen nii rek lay demee saa yu nekk c'est la télé qui s'impose ex ensemble ñu réunir ñi nga xamante ñoo nekk groupe suñu TV ak ci gannaawam suñu TV c'est la télé qui s'impose